asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ngi di laaj seen jàmm ak seen jàmm yaram di ñaan yàlla suñu kàddu fekk leen ci jàmm incha allahu euh, après ju liggéey gi dañoo génnoon ba léegi dafa am ci liggéey ñu nekk waaye xibaar yi dana ñëw tey ndax Cissé kat dem dem na bay wax ne mën naa joxe cinq cent millions de dollars ñu ràmp remplacer ko li ñu yàq ci Gaza te xeex bi ñu taxawal ko waaye gars yi lànk nañu loolu dem nañ ba naan nañu estimer li ñu yàqal Gaza Imaaraat ak Arabie Saoudite fay ko gars yi lànk nañu loolu ah lan moo des lan moo des mooy Israël nangu rek ne Gaza réewum naar la du réewum Israël baytul muqaddas jullit ñoo ko moom ñu waxtaan bu loolu amul it xam naa ne gars yi góoma ne danañu dëpp waaye daal dina am xibaar yuñ leen indi léegi ci kanam bu ñu jullee gee waaye loolu dama leen ko cee mosal noonu rek mu wax leen ne Cissé doon na dem di wax ne nangu na sukku fay cinq cent millions de dollars ñu remplacer ko li ñu yàqal gàttate gaa yi téye seeni ngànnaay gaa yi bañ nañu ne nañ loolu duñ ko def lu tax ñu di ko def naan na Israël nangoo fay xaalis bi kay moom yàqati këri jàmbur <laughs> waaye waaye ñoom lu ci seen yoon yow yow yaa ngi yow yow kii ni ko ko yow kii ni ko embargo nga embargo ko ne ko lekk sax du dugg sa kër mu takk ndiggam di xeex bu ma leen waxee sax euh, fi gaa yu jëlee ñu ngi koy gëstu ba léegi Israël dafa amoon ay tiwo yoo xam ne daf koo jaaraloon ci biir suuf gas ko ci suufu gas di ci sàcc ndox mu neex di ko yóbbu biir Israël tiwo yooyu moom la gaa yi gas génn ko dagg ko def ko ay misil <laughs> di leen ko sànni moom lu doy kii man jàng rek wóor ak xam-xam waaye lu dul loolu wóorul waaye incha ci kanam tuuti danañ danañ leen indil xibaar yi tey moom dangeen ngeen ko jot waaye xibaar boobu moom dama leen ko mënta ñàkk a wax Netanyahu daal wona ambassade Amérique wona ambassade Allemagne wona France wona ambassade Inde wona ambassade Union soviétique di jooy ci seen kanam xàcc nag jooy laa wax jooy jooy lay def ci seen kanam xam naa daa bëgg tubaab bi jàppale ko waaye ah ga abu obayda moom nee na ko abu obayda moom nee na ko booy boo nga jooy booy boo nga naan ndox waaw guerre bi moom du mën a jeex lu dul da di nangu ne nun ay gor lañu du ñuy jaam kenn mënuñoo neexal kenn mënuñoo jënd te yaakaar naa ne bu ma leen xibaar yi tey dana leer ci seen i nopp ci kanam tuuti. Euh, Amérique fi ñu toll nii dañoo nekkoon ci benn manifestation boo xam ne ñii jàppale Palestine ñoo ko fay def mu am beneen manifestation boo xam ne ñi jàppale Israël ñoo koy def léegi nag mbooloo maa ngi daje jàkkaarloo fi ne di xeex ak ay kurfoñ ay kurfoñ la ñuy xeexe police baa ngi police yaa ngi leen di tàqale waaye gars yi ñoom léegi dañuy bokk xam naa ne mbir mi da xaw naa doy waar borom kaala yi tikki mi daal ñu ngi kurfañante borom pantalon yi ak kab yi xeex dëggantaan daal laa gis làmb ju toj daal ni ngeen ko xamee woon Sénégal moom lañ def en directement ci Al Jazeera gars yi di xeex ay kurfañ la xeexante yaakaar naa ne ñii moom Euh, ñii moom caaxaan ñii moom bu ñu amoon i caase ki paaka itam danañ reyante xam naa ne amuñu fetal waaye xeex ñu ngay xeex daal xeexub en direct daal lañuy def loolu mu ngi am léegi léegi léegi léegi nii ci New York Al Jazeera mi ngi koy wone xam naa ne askan wi ñuy wax aljinsu saami daal xaw nañoo xaw nañoo la saam yi moo di ñi nga xam ne saam doomi nuuhin moo leen jur al jinsu saami ci la arab yi bokk al jinsu saami ci la banu israel yi xonq yi bokk al jinsu saami ci la français yi bokk al jinsu saami ci la espagnol yi bokk ak ak yi al jinsu aljinsu saami ci la ci la ci la ci la ci la italien yi bokk ay ñoom Danemark ay Hollande ñoom ñëpp ci aljinsu saami yàlla lañu bokk eh, aljinsul eh, yaafusiya nag mooy aariye yi yaafusiya yi moo di almaa yi jàpp turki jëm Iran jëm noonu nun ñu ñuul ñi ñoo di aljinsul haami yi waaye daal bu fekkee da xool ci histoire moom doomi maam saam yi daal ñoo la jël àddina bi ci xeex ñoom daal ñooy xeex ñoom ci seen biir bopp yàlla def na nag ba ginnaaw maam nooyin ak léegi yeneen bu wàcc ci ñoom la bokk waaw ginnaaw bu Ibrahima jàllee li ko da Ibrahima moom sariyaane la moom Ismaila waaye bu Ibrahima jàllee li nekk yeneen yépp ci jinsu saam yi la ñu nekk diine yëpp itam seen yonent ci jins saami la wàcc ginnaaw maam noyin waaye maam Sam daal xam naa ne xaw ma fu mu nekk waaye bu del siwaatoon àddina dina ne sama doom bi ñoo gën a dëng ñoo a jub ñoo gën a jubadi ñii daal ñu day kéemaan la ñu xam naa ne ah, fi mu nekk nii Gaza rek deux cent vingt sept personnes ñoo fa dee Gaza deux cent vingt sept personnes moo fa dee adadu shuhada fi Gaza al an deux cent vingt sept shahid ñaari téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoo fa dee euh, juróom benn fukk ak ñeent ñoo fa nekk ay xale ci ñi dee ci Gaza ci deux cent vingt sept personnes yi soixante quatre yi ñoo nekk ay xale ci deux cent vingt sept yi Euh, trente huit ñoo fa nekk ci ay jigéen ci deux cent vingt sept yi trente huit personnes ñoo fa nekk ay jigéen ci deux cent vingt sept yi nga xam ne euh, gaañu nañu ci bombardement Israël ci euh, Gaza waaye ñi nga xam ne ñoo am ay blessés ci Gaza nekk nañ mille six cent vingt mille six cent vingt moo moo am ay blessures te nekk ci hôpital yi te bokk ci waa Gaza deux cent vingt sept personnes ñoo ci faatu waaye mille six cent vingt ñoo ci am ay blessés nekk ci hôpital yi fi ñu nekk nii dañoo def ak yéen en direct li ñu leen di wax mooy la nekk Gaza fi ñu taxaw nii di wax loolu lañ leen di nett nii ba léegi eh, Joe Biden jotante na ak eh, Netanyahu ñeenti yoon waaye jotante na itam ak juróom benn fukki kilifa yu nekk ci gox boobu ngir jiima wayafal xeex bi di ko dale ci tey waaye kataibul xastaam itamit ba léegi moom mi ngi continuer nekk ci sànni ga mu doon sànni euh, ay jumam Israël yi tamit bombardé na tey ba toj juróomi kër waaye nag Netanyahu moom nee na dañoo bëggoon a continuer xeex bi xataa yataxaqa hadafuna bi aadatil hudu dañoo bëggoon a continuer xeex bi ñoom leela moom la wax moom Netanyahu ne liñ bëggoon mooy continuer xeex bi te duñ ko bàyyi babal li taxoon ñuy xeex am te moo di ak dal ñu delloo siwaat ko ah loolu nag yàlla la wóor xeex moom ginnaaw yaa ngi dóor gaa yi ngay dóor di fayu kenn xamul kañ la ak dal di am ndax fekk ñi ngay dóor ñi ngi mën a fayu moom ak dal du mën a am te boo duggee ci biir rajo yu mag yi ñi nekk Israël di génne di xam ne li ko dalee la ba bëgg ñëw xut ak mboolem dëkk yi nga xam ne ñaari dëkk Israël yi nga xam ne ñoom lañ nangu woon ci naari te sanc ko jàmm amu fa dal amu fa seeni kër yi bopp doyatu leen dañuy dugg ci ay bunker dina batu ba tax na eh, en direct lañ def ak yéen tey ak Jazeera lañ Al Jazeera lañ àndal te en direct lañ def ak yéen xëy na ba journal journalu en direct bi jeexee danañ dikk ci xeexew yi. fii ñu toll nii ñoo ngi wone missile bi nga xam ne moom lañ sànne mu jógee. Israël mu jógee Liban dal ci biir Israël ba léegi yàq ya fa misir boobu def ak daay guri gi nga xam ne moom la taal ci tool yi ba Israël yi ñu ngi koy wone en direct ba léegi jazira ngi wax ne Israël mi ngi attaqué di bombardé ci fi ñuy Deyrul Bala waaye ba léegi itam bateau Israël yi nga xam ne ñoo doon sànni ay jum ci ay xaaj ay ay gox yu xaajaloo ci xitaawu Gaza ba léegi ñoom it ñu ngi taxaw ci géej gi di sànni rek seeni jum muy bateau bateau de guerre israélien yi ba léegi ñoo ngi ànd ak yéen en direct ak Al ba léegi ñoo ngi ànd ak yéen en direct ak Al Jazeera votre journal moom moo jot li wax ne am na kilifa euh, armée gu nekk ci Algérie a ah, gu nekk ci ah, Israël goo xam ne gu yëkkatiku mbagg la wax na ne mën naa am ñu conti bu fekkente ni xool nañ ne continuer xeex bi moo gën mën naa am itam nu qiima zuruuf li wax fi itlaaqi naar mën naa am itam ñu taxawal li nga xam ne moo di itlaaxi naar te moo di fetal gi ñuy fetal ba léegi wax ne Égypte ak Qatar ñoom la américains yi délégué pour ñu dox diggante bi ba jàmm am ndaw ci wax na léegi nee na li nga xam ne moom la ñu yónni woon Égypte ak Qatar mu di dox ci diggante bi ngir wàcce station bi jàmm am ndawal Égypte mi ngi ci ak Qatar ba léegi di dox waaye amaguñ ci bunt loolu nag mooy li ma waxoon ne Égypte ak Qatar dañoo dem ba wax ne mën nañoo gàddu defaraat li nga xam ne moom la ñu yàqal Gaza te jàmm am waa Gaza bañ bi ma waxee loolu nag am na ku bind ne amul moom am na ku bind ci bi ne amul waaye Al Jazeera ba léegi moo ngi kon ne di wax loolu nee na Égypte ak Qatar daal ñoom la americain yi yebaloon pour ñu dem ma defaree diggante Israël ak gasa Amérique moom doxte lay def maanaam moom dafay nekk di pousse ak a forcer Israël pour bëgg ñu arrêter bi Israël di wax ne fekk Gaza bàyyiwul duma bàyyi Gaza di wax ne fekk Israël bàyyiwul duma bàyyi Égypte ak Qatar nag nekk ci diggante bi di dox ay tànki jàmm am na ñu wax ne Égypte dem na ba ne mën nañoo joxe cinq cent millions dollars pour ñu remplacer ko lu ñu yàqal euh, Gaza ñu taxawal xeex bi ah bi ma waxee loolu am na ku bind ne loolu amul waaye Algérie continue eh, maanaam maanaam Al Jazeera continue na ba léegi wax ne ñoo ngi négocier pour taxawal guerre bi te Qatar ak Égypte ñoo koy dox te Amérique moo leen ko sant xëy na nag kon ndey yu seen yooyu ñuy wax ne dañoo nangoo joxe xaalis xëy na ki bind ci écran bi ne loolu amul moom da ci am lu ko gën a leer waaye daal loolu moom depuis ci suba ak léegi ñoo ngi koy wax ne dañoo bëgg a dédommager waa Gaza pour ñu arrêter guerre bi waa Gaza nee nañu ñoom lu ñu arrêter guerre bi en tant que dañoo moom seen bopp te baytul muqaddas jot boppam loolu am nañu ko weddi nañ amul waaye nag jihaadul islaami yi moom danaa leen tegal ki nga xam ne moo di seen kilifa muy wax may traduire ba mu egg ka jiite guerre ba te bokk ci mbooloo mi jihaadul islaami yi danaa leen ko tegal mu wax ay waxam ngeen déglu ko bu ñu noppee ñu tekki ko ba tey bu dee amul it ki bi dina amul moom na joxe ay dalil waaye du tee ñu continuer li nga xam ne mooy xew-xew yi nga xam ne